waaw daje bi tey dañoo ne forum la forum lañ nekk forum la ñuy def forum boo xam ne pour insertion professionnel la woon jeunes yi yi nekk fii nii nga xam ne defuñu dara xamal leen ni que toog bi amul benn njëriñ dem defi formation moo gën toogaay bii nii parce que nit nga am sa métier moo gën tamit ngay toog nit a doo def dara loolu moo waraloon tey forum bu tey bi xamal jeunes yi li waral euh, insertion professionnelle voilà man CFP Bignona bi laa jógee man coiffure laay def tey dañoo ñëw pour exposer suñuy produit wan gars yi lu ñu nekk di def loolu lañ loolu lañ ñëw fii ne parce que ñu bëri dañoo yaakaar ne soo demee ci centre centre yooyu noonu dañuy yaakaar ne yow xamoo dara mënoo dara moo tax ngay dem foofu noonu te alors que du loolu ñun ñoo ngi nii tey am naa ci ay morom yu bëri yoo xam ne passé nañ suñu bac dem nañ ba université am suñu licence tey ñoo ngi fii nii dellu siwaat parce que amuñu métier moo tax yor say diplôme te amoo métier amul benn njëriñ looloo waral tey ji ñun ñu dellu siwaat di ut suñuy métier xam nan lañ koy doxalee parce que tamit comme ni ma la ko waxee yor say diplôme toog kër ga ñëpp di naan ah diw kat jàng na jàng na mu ngi yor ay diplôme am mu ngi nii toog état bi nekkul di ko jël pour mu liggéey te alors ko ñoom xamuñu lu ci biir moo waraloon ren ji man ma toog xalaat ji ma ne ah comme man mën mën naa létt damay létt mais aw ma ci diplôme faw ma dem ci centre de formation yi am ci yeneen euh, kii daal nu ñu nuñ ma koy wonee tamit ma xam yeneen yoo xam ne mun naa ko def moo taxoon ma dem foofu noonu te en plus loolu passion la ci man man. du bii mooy sama première année. du ma ne damay damay jay sama bopp mais man je suis ambitieuse képp ku ma xam ku ne dafay xam ne kii dafay bëgg lu may def. aujourd'hui nous sommes là pour l'insertion professionnelle pour montrer aux jeunes que euh, la formation professionnelle montrer aux jeunes la formation professionnelle est intéressante. Ne pas rester à la maison, faire du thé, euh, faire des jotailles aussi. Bah, nous sommes là aujourd'hui pour exposer nos produits, montrer aux gens comment nous faisons notre travail. Euh, pour que je puisse avoir un métier parce que euh, être à l'université, étudier, avoir des diplômes ne veut pas dire que tu as un métier. C'est pour cela que je, me, suis retournée pour faire euh, un métier, avoir un métier pour que je puisse travailler.